ki ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ndokkeel del si ak yéen ci jotaay bu am solo ku ne xam ni le 4 bi ñu jëm nay incha allahu mooy màggalu Sëriñ Mbàkke Madina ibn Cheikh Mouhamadou Moustapha nag ñu ñëw seet si kenn ci njaboot gi di bàyyi sëriñ Lo di suñu jëwriñ waaye it bokk ci njabootu borom Madina tey ñu bëgg waxtaanee ak moom dëgg-dëgg kan mooy Sëriñ Mbàkke Madina Baye Serigne Lo ñoo ngi lay ziar. asalaamaaleykum wa rahmatullah sëñ Buur ñu ngi lay nuyu te di leen delloo siyaar dinam mbégte te dalal leen fii ci kër gi ci ndigalal commission culturelle bi nga xam ne ñoo yor wàllu màggal gi ci njiital sëriñ Abdoulahat ibnu sëriñ Ibra Mbacke ibnu sëriñ Mbacke Madina ngeen ñëwoon tey rek pour nu fàttalikonte lu mu wërta fàtte te duñ ko fàtte muy sëriñ Mbacke Madina waaw moom nag ku neex a waxtaane la waaye ku jafee waxtaane la ku neex a waxtaane la ndax léppam yiw la waaye ku jafee waxtaane la ndax eh, li mu yor moo bari waxtaan wi itam dafay baax bi nga xamee ni bisam bii eh, dafa jege toll ci la la quatre ci mois de mai bii nu jëm bis yooyu itam li tax ñu koy def mooy di fàttali ko rek ndax alxuraan moo wax ne wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin suñ borom itam waxoon na yoonam saa sam ne ko wa kullan naxussu alayka min anbaa'i rusuli maa nusabitu bii fuaadaka nee na woon yoon saa sallam moo gën yonent yëpp ni ko danaa la nettali histoire yonent yi la jiitu woon loolu dana la may nga gën a sa sa ngëm gën a deer sa xol gën a te ñoom itam toog di leen waxtaane dafay tax yërmaande wàcc te yërmaande amul lu ko ëpp ci ab jullit inda sikri saalihiin tanzilu rahma bu ñuy fàttaliku ñu baax ñi yàlla dafay wàcc yërmaande ñun nag ni ma ko waxoon rek bi moom man naa wax tuuti ci biographie am rek du ñàkk waaye miin nañ loolu waaye li ñu gën di sopp ci waxtaan ci ñu baax ñi mooy ci seen jikko ndax ñu mën cee roy ndax xar baax yi mooy wax ni xar baax moom lu ñu aj ca kaw la ñëpp jotuñu ko moo tax booy wax ci ñu baax ñi wax ci seeni jikko ak seeni jëf mooy lii ëpp doole ndax yoon saa salaam mi gën sax ci suñu borom bi mu ko yónnee da ko yónni ni ko ni ko wama arsalnaaka illa rahmatan lil kon yërmande rek taxoon mu yónni ko ci lan ci ay jikko yu tedd ay jikko yu baax yoo xam ne nii ñu mën ko caaroy moo tax mu ne woon addabani rabbi fa ahsana taadiba suñu borom moo ma yar rafetal yar ba kon nag waaw suñu borom daal di wax ni laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun xasana mu ni comme yar naa ko ba lépp a mat li ma leen digal mooy ngeen di roy ci moom rek suñ mbàkki ma dina kuñ war a roy la mu mel ni wax nañu nii mi ngi gën àdduna ci Touba am na ñu wax njaareem waaye Touba moo gën a wér ci 1913 ñaari waay juróom xam nañu leen muy Cheikh Mahmoudul Moustapha ibnu Seyxul Xadim ak soxna Aminta Lo bintu sëriñ Abdourahmane Lo mu mel ni way juróom wu jigéen itam kenn ko ne xam na ko bokk ak soxna ma soxna sëriñ Mbakke waajuru maanaam maami sëñ Mbacke ma xam sëñ maam Thierno maam la ci moom soxna Issa Diop muy maamam kon mu mel ni diggante dafa newaat ci diggante ndaam ak kokki kon cër bi moom ci sëñ Touba doy na sëkk waaye mu cëruwaat ci kër yu mag a mag kooku loolu nag dafa daan nekkoon ni kon wal baladu tayyibu yuxruju nabaatuhu bismillah wala si xabu sax laa yuxruju illaa nakir maanaam suuf su tedd su baax képp ku ca bay am bay mu rafet mu mel ni way juróom itam mooy ki nga njëkk a woot wóotu Seexul Xadim ci xilaafa gi doon koo xam ne jàmbaar la joo xam ne nii bu ñuy wax yoonu murit tey jii mu taxaw ba egsi fii ñëpp war nañ koo sant ci taxawaayam ci li mu liggéey ci yoonu murit jumaa ji bokk na ci sos ko la ko sëñ tubaa digaloon indi raay bi jël sëriñ tubaa delloo ko yar njaboot gi mu fi bàyyi woon kooku nag ku mi sa waajur am nga responsabilité moom nag ki ko bi ko xamee ni yàlla dogal na ñëw na nekk na àdduna ba war a toll ci jàngi te jàng di farata ndax su mboroom a waxoon ni iqra bismi rabbika way juram da koo jël jox ko sëriñ Maxtaar Aale Lo ci tundee di mu jàngal ko alxuraan moom ak sëriñ Cheikh Mbacke magam ja nga xam ni benn lañ woon ak ñeneen sëriñ du Baara ca la woon mu nekk fa ay at bëriwut ñu jàng alxuraan mokkal ko lool man ko lool sëñ bi jël leen yóbbu leen delloo yóbbu leen ci seen maam Seexul Xadim ba ñu demee Seexul Xadim bëgg na ca lool mu daal leen di tariloo alxuraan wax nañu ni sëriñ Seex mi ngi ko tariloo suratul Aqmaan sëriñ Mbàkke Madina mu tariloo ko suratu Sajda dañ ko taree sëñ bi bëgg lool ndax ku xam sëriñ Tuubaa xam ni léppam alxuraan la moom mooy léppam kon boo amee njaboot gu mel noonu ñu mën alxuraan ci ndawe loola mbégam la mu digal leen nañ bind leen nañu dem te waaj bind ay kaamil bañ ca jógee xam ngeen ni xam-xam dafa am solo yonent sallallahu alayhi wa sallam moo wax ni utlubu l ilma walaw bi siini na ngeen jàng xam-xam doonte da ngeen di dem ba siin maanaam ci sorwaay bi la ci jublu wax ni talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wa muslima sàkku xam-xam dafa nekk farata ci jullit bu ne bu góor ak bu jigéen mu yóbbu leen jox leen sëriñ maxtaar jàng goyaar ca sura mu jàngal leen ñu jàng fa xam-xam ba moom ci boppam moo leen delloo si wane leen ah sëriñ bi ñii nga ma joxoon day lu ma xamoon man xamal naa leen ko kon am nañ xam-xam waaye taxul sëñ bi loolu doy ko ci daa bëgg ñu gën a yokk ba mbooleem lu doomu soxna yi nga xam ni ñoo góorgóorlu loolu la ñu xam ak li ñu doon ma mate la ko mu jël fa yóbbu leen gànnaar jox leen Ahmad Jam Asan foofee def nañ fa juróom-ñetti weer di fa mottali seen njàngum xam-xam ba ñu fa jógee itam doon ñu indiwaat leen ci sëriñ bi fii ci Jurbel pour ñu mën a gën a rafetal seen xam-xam ñu boole leen ne ku ñu wax sëriñ Mouhamadou Dem ca Jurbel mu nekkoon alim boo xam ni alim kulli fannin nga xam ni fii ci senegal ñëpp xam nañ ko ci man alxuraan gu man alxuraan waaye am xam-xam gu mu am xam-xam daanaka koo gis rek ci génération ñu dul mënul sax jànge nañ ci moom waa sëñ Mouhamad dem waaw mu yeesal mu maanaam toppaatal leen yenn téere yi bañ fa jógee itam taxul mu doy sëriñ bi indiwaat leen Touba ci sëriñ Habibu Mbàkke nga xam ni koo gis daanaka moom itam jaar na tam ci yoonu Mbàkke wala ci kilifa yi jaaral na fa njabootam ngir xam-xam waaye ngir barke ngir barke ba ñu jàng fa ñu moom itam mu topp lan topp toppaatal leen ndax booba jàng nañ ba noppi mu toppaatal leen ngeen téere nga xam ni kon léegi daayil man nga ni kon bu doon daal am njàng da nga naan maanaam ci yoon njàng bi ñaan ku nga xam dafa am ay cycle da nga naan jeexal nañ cycle yëpp léegi léegi nag loolu mooy jiitu mooy xam-xam bi ñu noppee nag sëriñ bi ni leen kon nag li ma leen di dénk ngeen jéema a wut ku leen doy ngeen jox ko seen bopp leen déglu ñu jël seen bopp xam ne seen bàyyi doy na sëkk waaw maanaam doy na sëkk ci kiy wut mu jox ko seen bopp lu ci moom lu tax pour mu defal leen ak tarbiyatu wa tarqiyatu ndax jàng baax na waaye eh, maanaam yéeg yar nit ki ak yéege ko ci suñu borom lu ko ëpp loolu moo tax seen waajur mi nga xam ne sëñ Tuubaa ko yar daal di def loolu moom itam ci moom ñu xam ni xam-xam kenn du ko doon ndaw ñi war nañ cee jànge lool xam ni bu doon xam-xam dañ koy doon kon ñoom ñii duñ jàng dañ koy doon moo tax war na yee ñu toll ci jàng ñu gis ñi fi ñu jaar ci marxala yi ñu jaar ñu xam ni kon góor-góorlu bu euh, jaadu la moo tax waykat waxoon ni taxallam fa laysa al mar'u yuladu aaliman wa laysa axul xilmi kaman huwa jaahilun wa inna kabira sinni laa ilma hindahu saxiirun ida mattafal xaleyhul maxaafilu nee na woon demal nga jàngi ndax kat lu ne mën nañ ko doon dañ doon daraja dañ doon alal dañ doon lu ne waaye du ko doon mu waaye kat yow mi amul xam-xam jàngiwoo dana am bis yoo xam ne bu teewee kenn du la diglu nee bu boobaa boo doon mag itam ca gune yi lañ lay boole moo tax ñoom suñ wajun xam loolu jàngal leen suñ borom waxoon ni xul hal yastawi lasina yaxlamuun wala moom laa yaxlamuun yàlla la questionné woon nee na waa ndax defe ngeen ñi xam maanaam daa leen yemale ñu xamut déedéet yemuñu bokkuñu kon loolu moo tax euh, ñu dem jàngi woon loolu ma wax ko ci seen tuut ci seen jaar jaaru kii sëriñ bi nag li ma doon wax lépp solo ci moom mooy ñu roy ci ay jikkoom sëriñ bi nekkoon na ko ragal yàlla ku sàmm ba ci jamonoom saa yoo ne sëriñ Mbàkke mat bi ñu ko xam ñëpp boo tuddee tur bi rek mbaax lañ ci mbaax lañ ci yëg ci moom waaw koo ni sëñ Mbàkke Madina rek li muy njëkk a xalaat ci moom mooy baax ragal yàlla googu nag mayoon ko daraja joo xam ne nii ndax boo ko see ragal yàlla rek yàlla da lay daal di jagleel mbooleem lépp moo bu dee xam-xam suñu boroom wa ko wa yuallimukumullah yàlla nee na bu ngeen ma ragalee rek ma xamal leen yàlla xam-xamal ko xam-xamul la duniya yàlla ni wa man yattaqillaha yajcal lahu maxrajan wa yarsuq min xilat nee na ko ma ragal ma di la wërsëgale fa nga nekk ak fa nga foog ak fa nga foogul moo tax ma nga fa mu nekkoon yàlla di ko jagle su mboom jagleel ko mbooleem su borom yow man yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'ati wa yusim lahu ajran ku ragal yàlla yàlla nee na danaa la jox jéggal la bakkaar doo am benn bakkaar waaye nag danaa la jox ay màggal dafa lay daraja yu rëy loolu nag lu am solo la yan saa si waxoon na itam ni laa fadla li arabiyin ala ajamiyin bi taqwa nee na woon ku ñuul wala ku gën wala ku weex gëñantewul lool ci ragal yàlla ndax suñu borom ko ci alxuraan ne ne inna akramakum inda allahi ki gën ci yéen mooy kii gën a ragal yàlla ci yéen sëriñ bi nag looloo taxoon mu nekkoon ku ragal yàlla ku sàmm ci lépp nag mu nekkoon tam ku takkoo woon ak alxuraan yi nga xam ni seexul xadiim we maamam alxuraan rek moo doon léppam bari na lu mu ci wax waaye comme émission bi daa gàtt yaa kitaaban karimi an tax bi ak yeneen yeneen yeneen dégg nga wax nañu ni daana jàng ñaari kamil ci bis am ñu wax ni Cheikh Mamadou Moustapha ci mu mujjam dafa xawoon a wéradi yàlla dogal mu ñëw fa mu ni ko damaa bëgg nga jàngal ma kaamil de ñaanal ma ci mu jàngal ko ca suuba sa mu del siwaat mu ni ko ah sa ñaan ga de am na sol jàngatal baneen mu jàngatal ko baneen mu gën a tane mu ni ko saxal ko ñu nii moo tax mu saxal ñaari kaamil yi am na benn version boo xam ne itam da leen a moo mook Serigne Cheikh ñu kenn ku ne nay jàng kaamil te booba Serigne Cheikh moom itam moo yoroon xilaafa gi yor itte yi di doxal mbir yi daanaka man jot ga man naa mën a ko may loolu mu ni ko baal ma féetewoo sa bopp kon ñaari version yi bu ci ne rek euh, mën naa nekk kon loo xam ne mën na ko mën naa mën naa bu ci ne mën naa ne rek waaye benn benn la ci ñoom daal waaw waaye bu ci ne da nga comme ñaari yëpp lañ ñettali waaw ku baaxoon la ku tabe woon la ku maandu woon la ku mënoon a muñ la ku selloon la ku dëgg woon la ko doon dépensé alalam ak temps ci doomu aadama yi la woon moo tax bokk na ci li nga xam ni tax na doomu adama yi fonkoon ko ndax nit kër am na loo xam ne c'est personnel say julli ak say woor loolu sa diggante ak sa borom la waaye social nag mooy li nga xam ni da koy jëmale ci yeneen doomu aadama yi ndax suñu borom wax ni wala ansri inna al insana la fi xusrin illa allasina amanu wa amilu salihat kon yi ma joxoon mi ngi bëgg a jeex ma wax ci ay réalisation sëñ bi loolu lépp amoon i tool la ci dëkk yu bari di ko doxal agriculture waaw bokkoon na ci yim def itamit lu rëy mooy yu may Daaru Xudoos jooju moo ko defuloon nga xam fa la sëñ Tuubaa dugg woon xalwa xalwam boobu keroog bañ koy ubbi bañ koy fondement sëñ Abdou Lahad dafa ñëw ñu doon xool sëñ tubaab fa mu defoon xàmme ba sa ñu dox ba mu yàgg sañ Abdou Lahad ne ko sëriñ jiitul xam nga xàmmikaay bu fa mu ne ba mu demee moo gas ba génne ko kon yaakaar naa moom itam fa tabaarakala loolu ci liggéeyam la jumaay na ji itam moo ko yeesal kërug njaareem gi yeesal na ko lii kërug défoncé gii nga xam ni ci loxol sëñ Modou waa alalu sëñ Modou Fall génnoon na ci ñoom ndax état bi leen a dédommagé woon waaye bi mu dikkee te xam ni moom bu sañoon yëfi sañ Modou Moustapha yëpp bu ko bàyyee ba ëllëg leneen di fa xew ñeneen di fa dëkk ñu war a dëkk dafa jaar sëñ Abdou Lahad laaj ko sëñ laat Lahad daal koy waxal Abdou Diouf mu ñu jaayaat ko kër gi mu jël kër googu tey ji def ko ci turam ba mu nekkaat alal li sëriñ Touba taxawal na ay ay ay ay dëkk yoo xam ni dafa daan yar ay taalibe mel ni Daaru Minam Daaru Rahman ñaamal Kayal ma dina ma sëñ sëñ mbokk sëñ Mour Moussa ko sosoon jox ko fa kon dëkk yooyu yëpp taxawal ko woon loolu nag liggéeyal taalibe yi di liggéey ak mu leen di defal tarbiya ak taraxiya di leen yar ku amoon relation la itam ak waa kër sëñ Tuubaa yi muy sëriñ Fàllu muy sëriñ Basiiru muy sëñ Abdou Khadir muy sëñ laat Lahat muy sëñ Moutala waaye comme temps bi may nu kenn ku ne mënoon naa wax li mu seq ak yow waaye damay bañ comme nee nañ ma presque jeex ma benn ni du la yooyu kon nag kooku yàlla nañ ko yàlla fayal. man daal damay wax ne léeg bu may jàng téere bi ñuy wax xol bu kaaw sëñ Mbacke man ndek sama xel dem ci li nga xam ne loolu la sëñ Touba waxoon ci xol bu kaaw waxaale seedeeti am waati ñooñu waxoon daal jaadu na leen di jooy di leen fàttaliku ndax seen taxawaay baasamaan ak suuf sax def na ko. man foofee laa koy dugal yàlla nañ ko sama boroom fayal noo ngi siyaar nag ak njabootam njabootam itam yàlla suturaal na njaboot bu mu fi bàyyi ñuy njaboot gu jub njaboot goo xam ne nii nuur nañ ko ci lépp ndax kenn du leen dégg ci dara rawatina xalifaam bi ñu ngi koy siyaar sëñ si ak bombaali ak yarakam ma tudd ci lu mel ni sëñ Ibrahima Mbacke ak sëñ Cheikh mu ndaw ak mbooleem mbakk yi du ma fàtte nag sama sœur bi nga xam ne moom ñoo bokk ba jigéen muy soxna mi Mbacke waa sama maamam maa ngi koy siyaare mooy itam di siyaar ay bokkam yu jigéen yi mu bokkal sëñ Mbàkke Madina di siyaar mboolem njaboot gi lépp di ñaan bis bi nga xam ni la kat la ñu war caa dem yàlla nañ sa borom may ak tal ak kattan ba noonu faa dem te ko di leen sant yéen tam uh, sëñ géwal seen site bi maa tudd maa ngi leen di sant ndax yéen itam lii dégg naa at bu nekk at mu jot ngeen def ko bien que bu ngeen bokkee ci kër gi itam yéen a ngi liggéeyal kër gi kon maa ngi ñaan yàlla na dem ba nekk ay télé yoo xam nii tey jii yàlla nañ ko fekk noonu ñëpp te jariñoo ko xam naa temps bee gàtt rek ne kon ñu gën a tas yenn yi de sant di gërëm yàlla sama borom dimbale nu bi jaayi xadim xadimi rasul wa sallallahu wa sallama ala sayidina wa lana muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa xayri xadim xadu xadim jasaakumullah xayra jasa jërë ngeen jëf